asalaamaaleykum wa rahmatullahi alxaaji Mbégi Diop pour Mame Ndokh TV mbokki réew mi mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen baalu xaq di ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke seex Seydil Hadji Malick si ak njabootam yëpp di ñaanal Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xalif général des Tidiane yàlla na dund téeméeri atum ñeent fukk yàllaa moom ay atam te ku ko neex la ko jox yàlla na ko yàlla defal ku ne amin yàlla nga ci bokk ci barke yonent bi defal ko njabootu Seydil Hadji Malick yi yëpp yi nag tey dafa am benn question rek bu may posé ci Cheikh Ahmada Tidiane Chérif dama am sama benn mbokku taalibe boo xamante ni moom laay woo muy kan Talla Gadiaga ma koy woo laaj ko Cheikh Ahmada Tidiane Chérif bi mu génnee àddina te bàyyi ñaari doomam yooyu ndax ñaari doomam yooyu dañoo continuer dund fees wala fan lañu dem ak nanu lañu mujje question boobu lay posé ki nga xamante ni mooy Talla Gadiaga mbokk yi alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV nii lañ ko bëgg di doxale bis bu jot ak ñu woo benn mbokk taalibe laaj ko li nga xamante ni mooy question boobu kon mbokk yi ni ñuy def mu ñu ñëpp dañuy ànd déglu ki nga xamante ni mooy Talla Gadiaga posé ko question boobu xam nan lay def waaw alxaaji Mbéng maa ngi lay ziar bu baax hmm. di ziar mbokk yi nga àndal di ziar képp kuy wala nga nekk membre ci sa site bi maa ngi lay ziar di ziar suñu xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na ko fi yàlla yàggal. amiin yàlla cërëm amiin yàlla. barke liggéeyam ba li mu yéene ci xadra bi mu def ko. amiin yàlla di ziar suñu kilifa yu baax yi dem Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum Cheikh Abdoul Aziz Al Amin. di siyaar nag euh, sëtam bu baax bi leen fi nekkal ci xadra Serigne Babacar si nekkal fi ay magam muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Amin hmm. di beesal sunu moom bu kolëre di ko ñaanal wér ak tawfiix yàlla na ko yàlla def hmm. euh, Seydi Cheikh Ahmada Tidiane radiallahu taala anhu hmm. euh, bi mu génnee àddina ñaari doom yu góor la bàyyi kii ngi tudd Mouhamadul Habib kii ngi tudd Mouhamadul Kabir Euh, Mouhamadul Habib moom moo ci gën a ndaw. 18 la am bi waajuram di génn àdduna comme li Pape Malick amoon bi Seydi Aboubacar si di génn àdduna. Uh-huh. donc ñoom bi seen bàyyi dee dund dafa doon ñaan bu fi jógee Mouhamadul Ghali yóbbu leen ñu dell ca Sahara ba ca Aynu ko mm-hmm. ndax booba Fass barke bi bari na te dëkku teeru la. Mm-hmm. te tarbiya dëgg dëgg dëgg yaa ngi ko mën a def ci àll. Hmm. ak fu wéet ak fu ñàkk lu mën a foye bakkan hmm. te booba phase barke bi bari na xumb na dund ga neex na hmm. pour mu rawalee seen pas mu ni Mouhamadul Ghali bu génnee àdduna na leen jelloo këram ko ne ca phase defar leen kii ñu nekk fa ñu sori fii di leen bañal barke ak nguur mayu leen ijaasa nag wér du dong la leen may yàlla dogal na ñaan na yonent bi mu ñaanal ko yàlla warlul ko ñoom ku ci màgg dund nekk arif hmm. arif billaahi nag gën a kawe comme ni koy déggee mooy nit ko xam yàlla hmm. al arif day xam yàlla xam jamono xam nit xam te xam yàlla euh, dara dootu te nga am al wusul ilallah hmm. nga egg donc daf leen ko ñaanaloon te bi nga xamante ni nag génn na àddina. Mm-hmm. Cheikh moom Cheikh Mouhamadul Ghali moo leen yóbbu Fass. Mm-hmm. moo leen yóbbu Aynu Maadi. Mm-hmm. bi mu leen yóbbu Aynu Maadi taxawal leen ba ñu defaraat seen kër bàyyi ka. mu teg leen ci loxo Alioune Damasini. Alioune Damasini leen bijee jëfal lijaasa. moo leen defar defar la ay ijaasa yu bari yoo xamante ni doomu soxna war na ko am ci tariqa bi. ñoom it ñu déggalan ñu lool mhm. am na sax histoire bu am ci yoon wi parce que seen dereti ndaw ak yooyu jàppante leen ba ci coono yoon yi bi mu leen jàppee ñuy noppalu mhm. am ci koo xamante ni dafa gegalu ci Cheikh Mouhamadul Ghali mhm. mu xaw a lex bi xaw a daanu ci suuf mu mu dóor ko ni ko xanaa doo jaam rek ci sama kër kër kër kër bàyyi kooku def kook sant ndax comme mi ngi tarbiyam ci wëliyu toll ni Seydi si Ahmad Tijaan di taay di taajul aarifin mhm. mu ne comme nekk naa ci kippaaram ba doomam jàppee ma ci jaam comme man li ma doon am naa ko allahu akbar yàqul dara ca yoon wa mhm. ndax ànd ak ñoom ba ñu egg mu mhm. taxawu leen ba kër seen kër baay àgg mu teg leen ci loxol Alioune Tamasini Alioune Tamasini moo leen defal ijaaza comme ni ma la ko waxee yi ñu soxla ci tariqa bi yëpp. Hmm. di leen gunge di leen jàppale. Hmm. yàlla dagal nag ñoom lu jant bi gën a fenk rek ñu gën a xam seen bopp gën a xam yàlla. Hmm. Mouhamadul Kabir. dafa fonkoon ñi àndoon ak Seydi Cheikh Ahmed Tidiane yi ba colonialisme français yi bi ñu ñëwee Tunisie. Euh, bi ñu ñëwee Algérie. di sonal yenn taalibe ñu woo leen ñu woote ci ak wàllu ci moom. mu ànd ak taalibe yi mu àndal dem fa di leen jàppale ci coono yi ak lu leen lu leen musal ci tubaab bi. Hmm. ca la bakkanam dese. mu hmm. dese Mouhamadul Habib la. Hmm. mu nekk fi. ànd na sax ak Alioune Tamasini dem Makka. booba euh, naxawoom bënnul parce que berber lañ doon làkk. la alluwam jotul a bënn ba mën a wax arab yoo xamante ni du def xata nax wi du amul vocabulaire yu mu ko composé jàngul hmm. te booba àgg na ci wilaya foo xamante ni nii boo masaan di boo jaaree Al-Azhar Caire dañ lay hmm. booba ñoom siiw nañu bu ko defee Alioune Tamasin daf ko làq hmm. bëggul ku ñu weddi ko ndax ku ko weddi al ko ndax boobu àgg na ci wilaya foo xamante ni nii ku weddi ku ko ku ko reetaan baa nga weddi ay njuumam rek génn génn ci génn ci génn ci naan hmm. li na wax almasaari bu saba hmm. yi nga naanoo juróom-ñaari naano waaye yi nga xamante ni nii ci la di naane doog a yegg xam naa loolu du aju ci du du xaj ci du xaj du ci xaj dëgg la dëgg la uh-huh. mais moo tax moom daf ko làq mais ginnaaw ba daf fa jóge nag gëstu ji xam-xam ba mën a génn nag ci mbooloo hmm. teewul ba ginnaaw bi def na yitte moom Mouhamadul Habib moom itam baaba ci ñi ko ne ñi ku ne lycée woon Tunisie daf nekkaloon fi français bi ci la bokkoon. Mhm. moom bi mu ajee màkk bay dëpp mu ne nañ ko dogalee na ñëw si ma bu mu jaar ci saxaraat bi na ñëw ci ma. Mhm. te moom yéene toog moom. ci seen xalawaat yooyu seen ñaan yooyu la ñaan yàlla moom bu naree toog ak moom na yàlla jël bakkanam. mais ci façon bu dul xaru nag seen seen seen dog yooyu seen seen seen tawa seen tawasulaat yooyu. ci la ñaan ba yàlla dogal na laata euh, colonialisme bi di jot ci moom ci la yàlla jël bakkanam. moom Mouhamadul Habib. moom Mouhamadul Habib. loolu moo ko génnee àddina. donc te Seydi Cheikh Ahmad Tidiane ci kës foofu xamoon na daan na leen bàyyi xel xam ne ñii kii ci xare lay mujj kii fii mujj ci ci lii la ñuy daal. Hmm. comme ni Seydina Mouhamad sallallahu alayhi daan leew sayyidu shabaabil janna muy Xasan yi Xuseynu xam ni ñii ci xare la ñuy faatu kii ci tooke lañ koy rey nii la ñuy mujjee muy xool ni lool dana am parce que kashfu da ngay xam lu dikkagul. Mm-hmm. parce que yàlla da wan ci nit ni nii lay mujjee lii mooy xew ci moom moo tax dafa noppalewul. Mm-hmm. moo tax daanaka waa tariqa bi dañuy ñaan bañ kashfu. moo tax. Euh, Sidi Hadj Malick dafa ñaan ni alxidmatu fil xadrati duna ruyatiha maanaam nga jeex tàkk ci liggéeyal alxadratul muhammadiya te doo gis sa liggéeyub dem mel ni tey nga doog a nekk primaire. est-ce Seydi Seydi Aboubacar si def ci bu neex bi nga xamante ni war naa euh, euh, donn Seydi Hadj Malick. Mm. te mag ñi désigné ko ni Seydi Hadj Malick annoncé ko ko mu ne ko dinaa ko nakk bi sart kenn bañ maa xam ba ëllëg. parce que mbir yi ëllëg la du tiitaru àddina. waaw ma nga jëm ca barzaq ca euh, fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir foofu la ko nit ñi soxlaa mais du tiitaru àddina. moo tax ñoom kenn ku ci nekk da daal nëbbu martabaam nëbbu wilaayam dëgg-dëgg daal Cheikh na Ahmed Tidiane yi doomam yi dunduñu ko faas ginnaawam Mouhamadul Xaali lañ àndal dem touriste yi ñu defaral leen seen kër ga ñu nekk faak ñoom seen taalibe bàyyi. dëgg-dëgg daal ñii la la ñii ñaar ñi la bàyyi gannaaw tabaarakallaahu mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu Talla Gadiaga ci école Seydil Hadji Malick Sy la génne mbokk yi gis ngeen ko nii lañ koy defee émission bu jot dañuy woo benn taalibe Seydil Hadji Malick Sy posé ko benn question mu leeralal ko askan bi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV incha allahu rabbi dinañ am keneen ku ñu invité bu ñu ko invité dinañ leen wax lan la ñuy waxtaane alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf